liggéey ci téere bi mu ci liggéey. liggéey ci mu ci liggéey. bi jotee. waaye bu waxtu bi jotee. mu doyloo téere bi nga xam ne. Muhammadul baaxu yàlla ak barke guddi gi barke borom guddi gi la yàlla defaloon borom téere ci feebaram ba ko daloon fu ñu xam ni ku mën a faj la ñu dem ca yow ba ñëpp daj kenn mënul ci moom dara. kenn mënul ci moom dara. mu tëdd ba guddi. mu tëdd fa ba guddi. di def tawassul. di def tawassul. nee ci Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. di dem. di dem. ci tàngaayu yaram wa. ci tàngaayu yaram wa. ba àgg ca bayit ba. ba àgg ca bayit ba. fa mablagul ilmi. fiihi annahu basharun gàtt mënatul mu demoon. dama dem ba. dama dem ba. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mais Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jóg. nee ko wa annahu xayru xalqillaahi kulli. mu raay boppam ba moom Seydina ba ca teewu tànk Muhammadul Mustafa. nee mu jële ci wér. nee ñaan ci barke bi di ko. ne la yàlla mayoon Ousseynou mii borom bur ci ci bur ba am ci wér ba am ci wér yàlla ko yàlla defal na ko yàlla defal ci sunu bàyyi ñu tëggaat leen ba ñu nekk ndax ndimbalul àdduna bi yépp la bi ñuy toog di sama xel dafa daw sama xel dafa daw doon nettali. ni sëriñ bi doon nettali. tëdd ngay Muhammad. tëdd ngay Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. am ngëneel ya. am ngëneel ya. Seydi Cheikh Ahmed Tidiane. Seydi Cheikh Ahmed Tidiane. tëdd nga. tëdd nga. ak ngëneelam. ak ngëneelam. Cheikh Seydi El Hadj Malick. Cheikh Seydi El Hadj Malick. tëdd nga. tëdd nga. am ngëneelam. am ngëneelam. te ñu jabootoo ci ñooñu. te ñu jabootoo ci ñooñu. te mel ñu comme ñoom. te mel ñu comme ñoom. dafay xaw a am lu mu mujj ci ñun. te Seydil Hadj Malick. te Seydil Hadj Malick. dafa wax bu gàtt. dafa wax wax bu gàtt. waaye mu ëmb lu bëri. waaye mu ëmb lu bëri. min kulli wasfin. min kulli wasfin. min kulli wasfin hamid Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu yàlla lan la ko yàlla ne suñu bàyyi bu tedd bi Cheikh Abdou Mamoul Cheikh dafa wax laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaykum ma anittum harisun alaykum bil muminina raufun rahim bu ngëneel waaw xoolal ko bu ngëneel yàlla jagleel ko yonent bi yàlla jagleel ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala Cheikh Seydi Hadji Malick min kulli wasfin min kulli wasfin waaye lu mu ci teg lu mu ci teg xamidi xamidi xam nga cant xam nga cant ki ñu sant muy Muhammad ki ñu sant muy Muhammad bépp melokaanu cant bépp melokaanu cant mu melokaan bu ñu ko cantee rek. xam nga melokaan bu ñu ko santee rafet na. min kulli wasfi. min kulli wasfi. moom Mouhamad. moom Mouhamad. xaaza. xaaza. laq na. laq na. min kulli wasfi. min kulli wasfi. xamidin. xamidin. xaaza afala taf. xaaza afala taf. diili. diili. rajaul baraya. rajaul baraya. mënoon na wax ni. mënoon na wax ni. mënoon na wax ni. mënoon na wax ni. rajaaul ummati. rajaaul ummati. waaye rajaaul baraaya. waaye rajaaul baraaya. lan moo tax lan moo tax. wa ma arsalnaaka. wa ma arsalnaaka. illaa rahmatan. illaa rahmatan. lil aalamiin. lil aalamiin. bu ëllëgee. bu ëllëgee. Muhammad kenn ku nekk. kenn ku nekk. moo yilif ñëpp. moo yilif ñëpp. bu ëllëgee. bu ëllëgee. bu mu sowewul. bu mu sowewul di nga lap. di nga lap. kon ñetti sant yàlla yi. kon ñetti sant yàlla yi. bu njëkk bi bu njëkk bi. yàlla mënoon nañu bind leneen. yàlla mënoon nañu bind leneen. waaye mu def ñu doomu aadama waaye mu def ñu doomu aadama wala xat karam naa bani aadama wala xat karam naa bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min atayibat wa razaqnaahum min atayibat wa faddalnaahum ala kathirin wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa mimman xalaqnaa tafdila ndax jarul alhamdulilahi moo loolu ndax jarul alhamdulilahi kuntum xayra ummatin kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas linaas ndax jarul alhamdulilah moo loolu ndax jarul alhamdulilah waaw bokk ci tariqa cheikh waaw bokk ci tariqa cheikh te yàlla wax ci alquran te yàlla wax ci alquran yaa ayuha nnaas yaa ayuha nnaas inna xalaqnaakum inna xalaqnaakum min dakarin min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen ki gën a tedd ci yéen mooy ki tax koo ragal ma man yàlla. mooy ki tax koo ragal ma man yàlla. Cheikh Seydi Aboubacar. Cheikh Seydi Aboubacar. ci melal waa Cheikh. di melal waa Cheikh. bu mul kiraamu. bu mul kiraamu. waaye jaral na ma ndax mënul ne sopp naa tariqa sopp naa tariqa doo dem jàkk doo dem jàkk doo dem wasifa doo dem wasifa yore kurus gu rafet yore kurus gu rafet xëy lu neex xëy lu neex ku la gis rek ku la gis rek nga ne ko ci tarixa bi laa bëgg nga ne ko ci tarixa bi laa bëgg nga ne lii sëñ Babacar wax nga ne lii sëñ Babacar wax feeg bokkuloo ci feeg bokkuloo ci laazim laazim lawaazim lawaasimahu takfi takfi li taalibiha min al manafi fi dunya wa uxra doo ko mos kon fa tabaarakallah feddali suñu cofeel. ñu ngi feddali suñu cofeel. ni ko suñu mag bi tedd ji wax. ni ko suñu mag bi tedd ji Cheikh Hadj Mansour wax. bu waxee rek wax nañu ñun ñëpp. mais bu waxee rek wax nañu ñun ñëpp. waaye jamono dafa toll foo xam. waaye jamono dafa toll foo xam. kenn ku nekk. kenn ku nekk. war nga wane. war nga wane sa cofeel. sa cofeel ca kala yàlla booleel. ca kala yàlla booleel. suñu wëy wii nag. suñu wëy wii nag. dañ ko jox suñu lépp. dañ ko jox suñu lépp. ngir jëmmi yàlla. ngir jëmmi yàlla. tax ak li tax moom moo tax moom moo tax jël nañ suñu bopp jël nañ suñu bopp na mu jëlee woon bopp na mu jëlee woon bopp jox ko suñu wajur jox ko suñu wajur man ñi ma am ñëpp man ñi ma am ñëpp noonu la ñu jëlee suñu noonu la ñu jëlee suñu bopp jox ko ko amul guddi amul bëccëg li am solo li am nañu dellu si nañu dellu ci loo xam ne kenn du ko am. am na ci loo xam ne kenn du ko am. di ko fooyee di ko fooyee. ñoom du ñu wax kenn dara. ñoom du ñu wax kenn dara. waaye li ñu fekk ci bunt bii. waaye li ñu fekk ci bunt bii. ñun ci suñu bopp. ñun ci suñu bopp. ñun ñu ko waral. ñun ñu ko waral. waroon nañ ko jomb. waroon nañ ko jomb. ndax li ñu am. ndax li ñu am. ña deful ni ñun. ña deful ni ñun. defuñu noonu. defuñu noonu. te amuñu lu mel ni li ñu am. te amuñu lu mel ni li ñu am. nañu am xaw na. nañu am xorom. bu ñuy wax jàkk bu ñuy wax jàkk ma jàkk xorma jàkk xurum ba xurum ba biti baa tax biti baa tax boo mayul biti bi xorma boo mayul biti bi xorma doo may biir jàkk ji xorma doo may sëriñ bi nii mu toogee sëriñ bi nii mu toogee jaaduwul jaaduwul nañ ko ubbil bunt waroon nañ ko ubbil bunt yaatal ko yaatal ko fekk li ñuy wax fekk li ñuy wax li ñu nekk dëgg ci ñu nekk dëgg ci delloo suñu bopp. nee na delloo si suñu bopp. kenn ku nekk. kenn ku nekk. bàyyi nga waajur ca kër ga. bàyyi nga napp nappal nga ko. napp nappal nga ko. tëral ko. tëral ba mu nelaw. ba mu nelaw ba sa xel dal. ba sa xel dal nga soog koy bàyyi. nga soog koy bàyyi ñëw fii. ñëw fii waaye doo ñëw ba fii nag. waaye doo ñëw ba fii nag. ki ñu amul lu dul moom. ki ñu amul lu dul moom. kenn ku nekk. kenn ku nekk yaakaar ko. yaakaar ñu lay seetaan nga di ko foy. nga di ko foy mënul nekk mënul nekk dañuy jëlaat yeneen engagement. dañuy jëlaat yeneen engagement. am beneen discipline. am beneen discipline. am beneen yar. am beneen yar. am beneen comportement. am beneen comportement. di dimbalante. di dimbalante kenn ku nekk. kenn ku nekk boo yaatalul sa morom. boo yaatalul sa morom. boo yaatalul sa morom. doo mën a yaatu. doo mën a yaatu ba yomal. ba yomal yaa ngi jégalu bu